ah ma ne nañ dem ni wóorul yaa ngi dem mooy ah yow balaa gën nii. waaw bu ma gisee sa téléphone bi léegi ñoo ngi nii dem lañ bëgg wala nga duggee HLM dugal HLM eh. waaw. ngi euh, H&M, euh, ko gisee ne dañoo baare yoon bu jëm Colobane euh, taal ay pono asamaan saa ngi ñuul kukk. ici au marché HLM fii marché HLM ñëpp a tëj ñëpp a fermé boutique donc il n'y a personne les commerçants et les ambulants sont tous dans la rue en train de guetter regardez voilà cantine yëpp a baissé rideau waaw il n'y donc euh, fii aussi sur la route des HLM euh, rideau baissé également la police est à quelques mètres au niveau de Sénégal fii kam xaw na calme tuuti quoi mais ba tey policier yaa ngi fi.